Alassane Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. nga nekk membre ca Haut Conseil des collectivité territoriales bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar euh, discours njiitu réew mi moo ko waxee woon ñu ngi koy xaar ci 26 juin bile euh, yow lan nga si xaar exactement euh, si njiitu réew mi li mu war a wax. waaw xam nga Sénégal nag dañoo bëri di def météo politique. Euh, président ba muy wax ne dina wax bu dialogue bi jeexee la ma ciy wax mooy lu dialogue bi jur gëwuma mu wax ci leneen lu dul ci point de consensus yi ak yooyu yëpp wax état wu dëkk bi defe naa ni loolu lañu ñu war a xaar ci discours bi mais pas leneen. voilà ñu bëri aussi ñu ngi wax ci discours bi euh, normalement si la njiitu réew mi war a ñëw wax ci est-ce que dafay laaj ñetteeli mandat. wala wala wala du ko laaj loolu si xalaat aussi. waaw xam nga ñi mm. wax loolu. Mm. ñoom nañu toppatoo seen candidat yi ñu ngemb te bàyyi ñoom ñun suñu candidat président la mu wax leer na nee balaa moo déclaré wu dina waxtaan ak njabootam yépp ba pare doog a wax lan lay def. kon taxaw fii. Mm. di def météo politique wala di gént géntu président chaque jour nga gis ci nouvelle boo xam ni xibaar boo xam ni. daf wérul dara lu dul jéem a def pression te loolu nag lañu ñu war a arrêté moom kese moo xam lan lay def waxu ci ak kenn waxagu ci ak kenn pour le moment kon ku ciy wax rek da ngay wax géntu euh, président Macky Sall mais la wax dara wóoru ci te Sénégal nag léegi dafa bëri naa féq yoo xam ni dañuy xëy di gént géntu jàmbur mm-hmm. mais ah. pourtant euh, honorable euh, troisième euh, candidature bi dafa bokk ci li nga xam ni ñu ngi koy waxtaanee si dialogue nationale bi euh, waaw léegi kon looloo tax sénégalais yu bëri jàpp ni nag bu dialogue bi jeexee président war na leeral bopp askan wi est-ce que dafay laaj troisième mandat wala du laaj troisième mandat xam nga du homme politique mhm. nga am sax ay droit yow yaay toog ne beneen homme politique bi dama lay xañ sa droit mhm. dañoo nekk ci réew mu am ay kuréel ñu ko ñun ñëpp ci conseil constitutionnel moom rek moo mun a wax ni kii day bokk kii du bokk mhm. ku nekk da ngay am sa yéene ne dinaa bokk ku am dix-huit sax mun na dem déposer après mu rejeté ko mhm. kon nag taxaw naan sa moroom nga am àq ak yëleef mu am àq ak yëleef nga ne ko yow sa àq ak yëleef dama koy génne man maa war a dem yow doo dem loolu moom waxu ku daanu sareet la nañu bàyyi loolu te xam ni. Mhm. président moom rekk xam li muy def keneen ku ci wax da ngay wax lu la neex. nag loolu ñuy wax noonu. Mhm. constitution bi daf ko may mu mu mu présenté wu. ah bon. waaw. loi bi moom dafa leer. Mhm. xam nga nit ñi ñoom deuxième alinéa loi bi la ñuy jël. waaye dafa premier aliment alinéa bi dafa wax lu leer dafa ne mandat wu président juróomi at la. dem deuxième alinéa euh, bi ne kenn mënul def ñaar yu toppatoo topp toppante. Mhm. waaw cinq ans la wax de. waaw waxul sept ans tax ngeen di laaj deuxième quinquennat. mais dañ ci am droit. mais est-ce que moralement même su dee da ngeen si am droit est-ce que moralement aussi euh, président war na ko mën a laaj parce que moo moo disqui moom moo disqualifié boppam ne moom mën nañ ko séentu si lu ne lu dul troisième mandat moo nit mais mais waxul troisième mandat deuxième quinquennat la ñuy wax ñun. ah waxuñu troisième mandat. yéen da ngeen di foowee xelu sénégalais ña toog fële ña toog fële. Hmm. ñooy foowee xelu sénégalais yi naan troisième candi euh, troisième candidature. ñoom ñu toogoon ci tele yi. Hmm. njëkk ne président am na droit. ñooñu. waaw xanaa dañu yeb sénégalais yi bu ñu jógaatee ne amul droit. koo ci laaj mu naan la dama juumoon. ah kon président mënul juum. léegi euh, Alassane Cissé euh, ñu euh, bëri ñu ngi laam-laamee ne fi ñu toll nii dialogue bi euh, li ko tax a jóg dëgg mooy xool rek nu ñu écarter Ousmane Sonko ba du bokk 2024 mais aussi euh, ñëpp njortu nañ ni dialogue bi su jeexee Karim sa Wade dina ñibbi si bokk Khalifa Ababacar Sall aussi dina mën a bokk ci 2024 bi looñu si mën a wax xam nga wax jooju euh, waxu su naxasu xam la parce président ba muy wax ca korité bi dafa ne moom buñ ko proposé kii dàq ko amnistie dàq ko te njëkkoon na ko wax ci conseil des ministres pour ñu xool naka la ñuy def ba ñi nga xam ni dañoo pertoon seen ak ak yelleef mun a bokkaat waaw loolu foog mu bokk ci dialogue bi buñ ko d'accordee ñun ñëpp mu doon point de consensus ñu ñu jàllale ko assemblée mu dem waaye nag taxaw koo xam ni condamnation défini condamnation wam définitive gul nga ne nañ ko boolee ci am si loolu fa ban lu waala nañu xool li ñuy def. Mm. xool li ñuy wax parce que nag dëkk bi dëkku yoon la. kon daal Sonko moo tooñ boppam bu fekkee dañ ko écarté ci ci ci élection yi. xam nga moom. Mm. amul euh, digganteem ak état bi dara amu ci. Mm-hmm. ndax du état moo ko porté plainte du état moo ko kii moom ñaari citoyen la jëflanteel ñooñu ñoo ko yóbbu ci yoon ñu condamné ko. Mhm. waaw ñooñu buñ la condamné nag bu la euh, buñ la état bi condamné bu la justice condamné lan lan lan la ci état bi mën c'est-à-dire dañu bëgg a jaawat la yëf yi du ñu xool li indi situation bi mais effet yi muy am la ñuy wax toujours bu ñuy wax dañuy naan kii dañ ko bëgg a xañ mais lan moo tax moom mu nekk ci position boobu loolu kenn du ko xool kenn du xool nii moom dafa tooñ ñaari nit ba yoon ne ko loolu mooy wax ji mais wax ji du effet bi muy am ndax képp ku ñu tëj dina am benn effet du moom rek ñi ñu tëj nag ci kii bi perte ñu dara am na ñu jël xaalisu fa ñuy liggéeyee ñu tëj leen dañoo pertaale seen liggéey am na ñu def li mu li mu def te dañ doon liggéey mais dañu perte lépp am na yi fii leneen leneen leneen leneen leneen justice di condamné mais bu ñu la justice condamné am na loo xam ni la cay topp loolu moom kenn du ko wax mais bii dañ ko bëgg a jël rek féetaloo ko noonu. léegi Alassane euh, Cissé euh, fi ñu toll nii gis nga waa Pastef dañoo lancé benn pétition ci réseaux sociaux yi parce que dañoo bëgg ñu tas euh, parti bi di APR parce que gis nañ APR day recruter ay nervi ñuy tiire ci kaw askan wi parti banditisme la dañ ko war a tas loo si tontu. waaw est-ce que waa APR ñoo taal këru jàmbur yi. est-ce que waa APR ñoo song marché yi est-ce que waa APR ñoo song euh, banque yi est-ce waa APR ñoo song Auchan yi toj Total yi yàq dëkk bi yàq B ñoo ñu di wax nervi ñoom ñoo am nervi dañuy jéem a njëkkantu mais xam nañ li leen war a dal parce que parti boobu dafa violent Sénégal ba mu nekkee Sénégal ba léegi benn parti rek nga fi gis muy woote naan rey leen diw taal leen kër diw lakk leen bërëb ba leen lakk leen bërëb bi lakk leen BRT lakk leen TER yooyu yëpp ñoom ñoo koy def donc xam ñi ñoom dañoo nekk en porte-à-faux avec la loi ñuy bi jéem njëkkantu naan dañuy def pétition waaw yow boo reconnaîtreul institution bu dëkk bi boo defee pétition kan nga koy jox doo ko jox ministre de l'intérieur doo ko jox justice bi parce que yow yaa ne reconnaître loo leen kon nag ñoom kan lañ koy jox. xanaa dañ koy yóbbu feneen. Mhm. xëy na ONU lañ koy yóbbu de waaye du fii ci Sénégal mais Sénégal moom état bi devoir am mooy mu dissoudre Pastef. Mhm. déclarer ko mouvement terroriste. loolu moo war a am te nit ñi dañoo bëgg a fermer seen yeux seen i bët ci loolu yéen journalistes yi yéen a war a njëkk a nit ñi mais nervi nervi ñi ko am mooy ñiy yàq. mais militant yu taxaw ne lii du fi amee. Hmm. bokkul ak nervi bi. Euh, ñoom ñi xam nervi bi ñoom ñooy wax mi nervi bi. Hmm. Euh, naka nga gisee situation bi Ousmane Sonko di dund ñu tëj ko de ñaari atu kaso yoo xam ne normalement heure bi waroon na ko fekk ci ci kaso bi mais moom daal euh, si tënk daal fiñ ñu toll nii mu ngi këram mais en résidence surveillée ay takk der ñoo koy surveiller vingt quatre sur vingt quatre si jàngat. xam nga loolu mesure administrative la. Euh, ministre de la justice sax wax na leen ko ne la dañoo nekk ci maintien de l'ordre bu ñu gisee ni kii bu génnee wala mu kii dina yàq dëkk bi ñu téye ko këram te loolu sax mënoon na nii ministre de l'intérieur nii ministre de la justice wala justice bi jël ko préfet kese mënoon na jël ko ñu téye ko këram du génn bu invoquer légalité de crise parce que loolu yëpp ci droit administratif la kon bu ñu taxawee fii naan waaw won leen ñu décision yooyu dañuy wax lu leen neex ñi koy wax waxu ku daanu si sareet la parce que boo xoolee ñoom ba Sonko barricade këram dégg nga droit de l'hommiste bu wax au contraire ay politiciens dañu dem foofu di ko waa ñoo ñooñu tey est-ce que war nañu wax ndax benn citoyen citoyen bu amee droit baare ko koñam ne police wala gendarmerie du fa dugg waaw état amul droit def loolu état mi yoree lépp gis ni kii mën na lor ay doomu jàmbur mu téye ko waaye kenn du wax boobu bii lañuy wax parce que bii état bi moom am na monopole de la violence légale mën na téye ku nekk ne la doo génn sa kër mais citoyen bu def loolu ñu ko ciy félicité état def ñu taxaw di wax état kon fan la ñu nekk dëkku yoon lañu ñu nekk nekk ñu ci jungle mais mais mais normalement ñu bëri dañu jàpp ni euh, état bi dafa ragal Ousmane Sonko moo tax ñu bàyyi ko këram ba léegi mais normalement instant bi waroon mu fekk ko mu tëdd kaso. état moom mënul ragal nit. wax loolu wax lu la neex la. te yéen journalistes yi sax yéen a war a jéem a génnee loolu nit ñi xam ni puissance publique xajul ci benn nit mais da ngeen di ko jël di ko wax jéem ko dugal ci bopp nit état mënul ragal nit ndax état monstre froid la dalay écraser amul benn nit bu mun a dékku force état kon nañu bàyyi wax jooju te xam ni dañu nekk ci yoo réewu yoon yoon am lu muy doxee état ne lii kii ku ma ko bàyyee mu génn ci mbedd mi mën na am kii parce que gis nañ li fi xewoon yépp kon état dafay jël ay responsabilité bu citoyen mu nee jël responsabilité barricade këram massa ak état nañu bàyyi waxu yooyu waxu naa fekk yooyu ñii ñëpp di wax tey démb dañ ko doon félicité ndax barricade na këram dañ ko doon félicité ñii di daw di wax mais déggoo kenn wax ci te jii ñu bëggee ñoom ñëpp ubbi seen gémmiñ di ci wax waa xanaa ñun dañoo nekkul ci état xanaa ñoom benn côté rek la ñuy xalaatee du ñu xalaat yeneen côté bi. léegi euh, honorable euh, une dernière euh, question si HCCT naka kuréel gi est-ce que mi ngi fonctionner normalement actuellement. waa kuréel gi de moom mu ngi def session am di dérouler normalement ñenn ñu sax ba am na ci ay commission yoo xam ni dem nañ ci yenn gox goxaat yi di saytu par rapport ak thème bi ñu am mais ñu ngi si ñu bu ñu ñëwee ba def seen i ay conclusion ak yooyu ak ñu pare audition ministre yi waroon a jàll ak directeurs yi danañ def suñu conclusion yónnee ko président donc kon ñun ñu ngi ci suñu liggéey ba léegi wàcc ñu yoon kon honorable Alassane Cissé maa ngi lay remercier bu baax a baax ci nangoo tontu bi nga nangoo tontu suñuy laaj. maa ngi lay jaajëfal yow it soxna Ndeye Comba di jaajëfal sa auditeurs yi ak techniciens yi ak ñëpp. voilà di féliciter rajo FM. ñuy fàttali ni euh, membre nga ca HCCT euh, bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar merci beaucoup honorable Alassane Cissé. jërëjëf soxna Ndeye Comba.